jaajëfal comme ni ngeen ko xamee Sénégal mi ngi traversé ay moments yu trouble moments yu trouble yooyu ce n'est pas la peine ñu ciy dellusi parce que ku nekk yaa ngi koy vivre ca fa nga ne ku nekk yaa ngi xam lan la doon mais d'abord di mastaw ñi nga xam ni tey jii nii ñoom ñoo nekk ci prison yi ñu arrêté leen keroog ci bi manifestation yi amee ak ñi nga xam ni ñoo ngi continuer di leen arrêté ba bërki démb ku mel ne El Mali ku mel ne le docteur Niang ku mel ne ñeneen ak ñeneen comme le maire Bilal de Kër Massar nga xam ni tey jii ni ku nekk xam na ni ñoo leen di teg lu dul yoon di jaale ñi nga xam ni ñoo ci perte seen bakkan di jaale seeni famille di jaale sénégalais yëpp mais comme ni ñu koy yàgg di waxee le président Macky Sall moo dugal Sénégal ci cycle bu infernal dugal Sénégal ci cycle bi nga xam ni bi ñu amee sunu indépendance ba tey cycle boobu Sénégal moo ci dugg rapport bi mu établir avec son opposition mosu fi am et loolu lépp moo waral yi nga xam ni moo am ni tey mais di ko fàttali parce que fàttali dafa baax que quelles que soient ses intentions quels que soient ses moyens de répression nous continuerons à lui faire face parce qu'il ne s'agit pas justement de lui. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de notre démocratie, il s'agit des libertés yi nga xam ni biñ koy tabax moom nekkaguloon président biñ koy tabax ñun ñoo du ñun ñoo nekkoon opposition bi di ko incarné pour wax ni am na lu ko jiitu am na ñu ko jiitu et loolu na ko xam ni duñ ko bàyyi mu koy def nam ko neexee di rassurer et c'est important tous les militants des partis les sympathisants des partis de Yewwi Askan Wi di rassurer l'opinion sur la détermination des leaders vous savez ce qu'il faut surtout éviter et je le dis avec force en ces moments mooy di permettre à qui que ce soit muy dugg ci diggante yi di indi des procès entre les militans et les leaders ou des procès entre les sympathisants et les leaders parce que lii ñu dugg xam ngeen ni du lu yomb xam ngeen ni du mbiru benn fan du mbiru ñaari fan parce que l'objectif il faut ñu xam ko mooy sunu démocratie suñu ay liberté ñu ñuy fexe ba encadrer ko ñu ñuy fexe ba renforcer ko l'objectif ultime c'est le départ du président Macky Sall le 25 février 2024 et la participation de tous les candidats et loolu bu leen ko perdre de vue et ne pas le perdre de vue mooy ñu xam ni en toutes circonstances dañ war am un mental solide war am une capacité de résistance et de résilience mën en toutes circonstances relever wu faire face et xam ni c'est le président Macky Sall qui est dans une entreprise de destruction de ce pays-là être dans une entreprise de destruction de ce pays weesuwul tous les droits yi nga xam ni moom la constitution bi jox citoyen yi nga ni droit yooyu duma leen ko nangul et tous les droits yu ma constitution bi jox dinaa ko jël ba jël yeneen yu ma joxul ku nekk ci loolu yow yaa nekk ci entreprise de destruction du pays là et j'ai l'habitude de le dire situation day am bu fekkee ni remonté ci cause yi nga yem ci conséquences yi da lay yóbbee nga jaawale dans la situation qui est victime et qui est le coupable mais le coupable dans tout ce qui arrive aujourd'hui n'est personne d'autre que le président Macky Sall qu'est-ce qui peut expliquer que ñu ni la loi est là pour tout le monde qu'est-ce qui peut expliquer que ñu ni tous les citoyens dañ leen war traiter d'égale dignité et que un citoyen sénégalais nga convoqué ko ni ko tel heure war na la fekk palais de justice mu ni dinaa ñëw yegg si heure boobu nga ni ko non pas que da nga war yegg si heure boobu mais man maa lay tànnal fan ngay jaar ba nga yegg si lan moo mën expliquer loolu ci biir Sénégal ba indi lii mu indi ci le président Ousmane Sonko di ko mastaw ci li nga xam ni tey jii nii moo li am ba ñëpp xam ni ci état de santé bi mu nekk nii kon ku def loolu. ni yaay jaar fii waroo jaar fii te war permettre à un citoyen mu jaar fu ko neex pour mën a répondre à la justice kooku mooy responsable de ce qui se passe aujourd'hui mais na génne lu ko neex def lu ko neex mais du tere ñun tous les jours il nous verra et on lui fera face moo tax la coalition Yewwi Askan Wi xam ngeen ko mooy coalition bi mu bañ a dégg les leaders de Yewwi Askan Wi xam ngeen ko mooy leaders yi mu bañ a dégg leaders yi mu bañ a dégg moo tax muy fexe ba tous les jours ku ci candidat mu xool nu mu lay éliminer ba tous les jours ñuy gën a rapproché élection muy xool yan pexe lay def ba du bokk mais le président Macky Sall gis ngeen interview bu mu def bërki démb express ku doon laam-laamee ni dafa bëgg doon candidat à la présidentielle je pense que loolu <clears throat> leer na ci bopp yi ki nga xam ni dafa ni nii wii nii non ci benn mbir te ku ni wii ci mbir moomu mu promouvoir la ku ni non ci mbir moomu mu sanctionné la kon xam ngeen li mu wax donc est-ce que da ngeen di taxaw di xaar mu naan leen bàcc laa tudd bàcc laa tudd ngeen ni noo dañuy déglu ba mu ni Samba la wax na ni il veut être candidat il ne le sera pas et tous les leaders de Yewwi Askan Wi seront des candidats ceux qui le souhaitent et ceux qu'il a écartés aussi des candidats mais kooku est-ce que le président Macky Sall war nañu ëpp fulla gu tey ne moom mu ni foofu laa jëm ñun ñu war taxaw ni que daa yegg yoon baa gi noonu kon c'est l'affaire de tout le monde c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de chaque citoyen c'est l'affaire de chaque citoyenne ñu xam ni c'est un combat pour les libertés et pour la démocratie ñun duñu mos a bouger ci loolu duñ ci mos a varier mais croyez-nous on va y aller avec beaucoup de stratégie beaucoup de tactique mais on va parvenir à nos fins moo tax on annonce ici le président Macky Sall na ko dégg que le 29 on va faire une marche marche bi nga xam ni dina tàmbalee rond université ba rond Médina di ci woo tous les sénégalais fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ñëw ànd ak ñun ci marche boobu kii toog di Abbas Fall dugal ne demande d'autorisation bi depuis lors le 30 Yewwi Askan Wi commencé na travailler à travers ses bases ci 46 départements bi ci Sénégal pour que partout mu am également des marche le trente les coordinations départementales ñoom it commencé nañu déposer demande de lettre d'information yi le 3 avril wi Askan Wi également dina organiser des marches sur l'étendue du territoire national loolu lépp pour xamal le président Macky Sall que fu détermination yam ci dina nasaxal suñu démocratie fala sunu détermination tàmbale ni que daanu taxawu suñu démocratie fu pexeem yam pour nasaxal suñuy liberté ñu wanka ni fa suñuy pexe tàmbali pour taxawu suñu ay liberté et di ko demander dans les plus brefs mu libérer tous les détenus politiques gis nga opposition ak pouvoir yàgg na ñuy séq réew mi ñoo ngi koy wax léegi yàgg na am ay arrestation manifestation ñoo ngi koy wax léegi amul détenu bu nu mas fanaanloo ci commissariat à minuit une heure le plus souvent libéré nañu ñëpp ñibbi yaa qu'avec ce régime là ngay gis ñuy jël naan ñoo ngi yóbbu ay instruction di jël naan ñoo ngi def ay information judiciaire le président Abdoulaye Wade quelle opposition la amul woon devant lui mais il a toujours fait preuve d'élégance Même quand il était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'opposition Mais le président Macky dafa xamul opposition. Il n'a fait que trois ans dans l'opposition. Il venait fraîchement d'être débarqué. moo tax xamul lan lay tekki mais bu fekkee ni foog na ñu jël gendarme yi jël policier yi tekk ci diggante bi di persécuter les populations mooy tax tey jii nii mu mën a def suñu république bi transformé ko te jii nii en royaume il se trompe parce qu'il n'est pas un roi donc loolu na ko xam di wax encore une fois à tous les militants responsables sympathisants des différents partis politiques au la à tous les citoyens sénégalais ñu retenir ces dates-là pour que encore une fois ñu taxawu suñu démocratie taxawu les libertés loolu mooy plan d'action bi nga xam ni Yewwi Askan Wi retenir na ko di leen gërëm di leen sant wasalaam. merci président Déthié le président Malick